yoraat dossier surtout yu laaleeg mbiru finance ak ya ca aju ci moment boo xam te ne tey ñu ngi installé pool bi war a liggéey euh, ci saytu la fi woon ci koppar fa mu dugg ak fa mu dugg ak ñu ci incriminé ak rapport yi jox ko suite du la bett ci bu ñu woowee amul ba ci loolu. waaw loolu euh, sa laaj bi ñaari laaj la. mooy li jëm ci wàllu pool financier loolu euh, lu ñu lu ñu teg la. Hmm. et rappeler que Macky juillet 2023 moo indi projet de loi pour dindi créer yi indi pôle financier hmm. juridique parce que lu mu ci jublu parce que ñoom ñoo dem ni créer bi dafa doon violer àq ak yelleef te dafa amoon ay manquement mu ne nañ ko remplacer donc pour dire que pôle financier bi du Sonko ak Diomaye ñëw ko indi euh, loolu benn question la beneen bi créer bi Mimi Touré yaa ngi fàtte bi Kouthia di woyal Mimi naan Mimi Mimi ngi ñëw moi je disais que Mimi avait servi de sabre à Macky pour liquider ses adversaires politiques beneen bi Bob Marley li mu doon li mu doon li mu doon way ah, am na sa rapport Sénégal bu ko your best friend could be your worst enemy sa waaye tey mën na doon sonoon donc ça c' est politique sénégalaise quoi parce que euh, il y pas longtemps dernier législative yi Mimi Touré était pressenti tête de liste de Benno Bokk Yaakaar mm. donc au fil du temps génn na benn boo ko yaakaar ànd na ak Ousmane Sonko ak Diomaye comme en tant que seen allié. ensuite mhm. Mimi Touré a été au cœur du dispositif parce qu'elle a été ministre de la justice et elle conduit la traque donc xam na li nga xamante ni mooy les outils et les instruments pour mun a euh, li jëm ci wàllu saytu beneen bi nekkoon na te yàgg na ak ñoom loo xam dem ma dem ba gën laa xam boppam wala xam gën laa xam ay ñoñam donc euh, sur le plan politique euh, tey am na fu mu féete il faut qu'elle montre que qu'elle en a des des et, et des euh, pour aussi mu mu dal amado Ba c'est tout à fait normal comme li li mu wax sànq ci revue de presse c'est très pertinent la c'est comme des combats de boxe da ngay dugal coup ñu dugal lu coup maintenant l'autre interrogation où yow fi nga wax c'est-à-dire courage politique man si sama analyse Amadou Ba amul woon courage politique parce que Macky Sall bu amee dara nekk na PDS coow am na mu bàyyi parti baag bàyyi maire Fatick bi mu nekkoon ak président assemblée parce que jël na courage am politique mais Amadou Ba bi ko Macky dindee neuf ans après mu nekk ministre des des finances. munoo nekk 9 ans ministre des finances di conduire finance su Sénégal te doo rendre compte loolu mënut a nekk mais boobu génnul yaa ngi koy fàtte bi muy bind ay loyauté xaw ma lan géométrie variable parce que Amadou da doon yoot Amadou yoot na schéma na ba nekk candidat mais beneen interrogation bi ñu bi ma amoon mooy je pouvais pas comprendre APR tànn candidat am ba pare jël candidat am jiin ko. da ngaa ger conseil constitutionnel ñu dem ànd ci ak PDS un benn seetlu. nee nañ dañoo bëggoon mbir yi leer seen candidat lañ bëggoon seetal. waa mais seen candidat bi amul jàppale. nan lay nekkee seen candidat ma Mbaye Niang Amadou Ba nekk premier ministre Mame mbay Niang nekk ci gouvernement tiire ci kawam c'était pas un hasard tey Mame dem na uufu ci Macky Sall fële ca Maroc Amadou Ba génn am ñu mu àndal. kon déjà am na benn lii am na lu ko annoncé woon au début mais beneen bi euh, tu as raison Amadou Ba déggoo ko mu xas wala mu wax wax bu ñaaw moi j'aime cette posture moi je préfère euh, kuy wax si ak élégance plutôt que ay saag à main wala ay robe turfet <laughs> au moins mais dëgg la au moins ce qu'on mooy une opposition buy am niveau boo xam ni le débat sera technique le débat sera sur l'économie si ñun invite boobu la ñuy def ko le débat sera sur sur l'agriculture le débat sera euh, sur euh, l'éducation et cetera et cetera donc posture bii mu am ñu bë ñeneen ñoo ko waroon amee sax c'est-à-dire ñii ñëw nañ par élégance si six mois yi nga def benn break maanaam may leen sax ñu dérouler par élégance bi ñu la laajee wala ñu puus la ci wax lu ñaaw nga ne non soxlawuñ ko parce que ñoom ñu ngi doog a toog donc pour man stratégie boobu mu def benn instant mu seey kenn dégg ko mu ñëw fël léegi le fait que moom mu fël il fait sa sortie il fait sa sortie on parle de sa sortie d'autres vont tirer sur lui donc tey am na benn vide bu amoon boo xam ne déggoo woon Amadou Ba donc lu fait que moom mu dugg c'est de bonne guerre mais Amadou Ba du tibb ci électorat donc l'entrée politique de Amadou Ba fait l'affaire plutôt même du régime en place. oui sauf que fi ñu toll nii Amadou Ba reddition des comptes laa wax ñi koy. ñi koy di ko ci xalaatal. waaw léegi politique la ñuy wax. Ah, am nga gis nga ci ay raisons. yoo mën a tax damay wax yow politique ba pare après ah. ñu dem si reddition des comptes donc le fait que Amadou Ba dugg ci langue gi am benn parti APR bu mu yóbbaale dafay arranger régime bi parce que loolu dafay gën a. disloquer opposition bi et ça fait l'affaire euh, du régime maintenant sur la reddition des comptes euh, je crois que c'est tout à fait wax naa la ko léegi-léegi Amadou Ba ne peut pas être ministre des finances pendant pendant neuf ans ensuite man lu ma mës a wax la la gëm fonctionnaire milliardaire pour man sàcc weesuwul loolu quoi fonctionnaire milliardaire hmm. lu nekk tu as de de mobilisation mobilisation nga foog ni euh, t-shirt yi du ay moyens hôtel bi lu koy fay du xaalis mobilisation di wootal ma di di jëlal kaar ça c'est des moyens parce que <laughs> moyen politique boobu c'est des moyens financiers l'autre chose où je ne veux pas personnaliser mais tey c'est une nécessité après tout ce qui s'est passé man dama jàppoon ni sax dama ko doon wax ñi ma doon dégg dañ may dégg ma naan Sénégal daa mel ni daa ndeyale boppam scandale ndax esba saa munuñu toog te duñ dégg scandale et je rappelle que OFNAC quarante cinq rapport yu mu def teg ko ci taabalu procureur yi li mu wax fa dafa dafa am pertinance li mu ne Macky moo doon wax daa am dossier yoo xam maa ko teg suuna kut léegi borom Macky dem na kut ba dem na kon dossier yi tegu na ci taabal ji rapport yi nga xam ni mooy cour des comptes Macky Sall moo ko commandité kon du nguuru Diomaye ak Sonko pôle financier bi ñu war a lijjantee mbir yi Macky moo ko fi teg tamit wala moo ko teg juillet deux mille vingt trois Macky moo ko teg jaarale ko assemblée kon tey c'est nécessité que ñëpp ñi nga xamante amoon nañu responsabilité dans la gestion des affaires publiques notamment yoo xam ne c'est lié à des scandales rapport yi épingle leen ak ko mën a doon war nañ laa woo lañ bët la bale jomaa bi ñëw ànd ak suy bale cuuraay ñu loqati mbooti wax na dëgg nit mënul toog ne kilo ñebbe mille francs lay jar au moment où les étudiants galèrent pour am lu ñu lekk rapport IGE ba bi la épinglé woon daan ne kii waratul am benn fonction Macky jël ko nommé ko ministre mais yooyu nag baax na aussi ñu ñu leeral ko beneen bi ñu éviter une politisation parce que boo ko xawee dugal tuuti politique rek bu amee connotation bi rek da ngay am une victimisation. ku ko war a éviter. le régime en place cest à par exemple comme ni nga ko waxee Mimi est venue elle a fait une sortie mm-hmm. taf xam nga yaa ngi génne coïncidence mm-hmm. Mimi wax na tey lii génn na ñu éviter politisation c'est-à-dire ñu éviter erreur bi Macky defoon dans la démarche parce que après di nga jàpp sàcc bi sax sàcc bi ne mbiru politique moo tax donc montrer que justice mooy def liggéeyam dans leur communication montrer que rapport yi fi nekk yépp ñun suñu yoon newu ci mm-hmm. Macky moo yebaloon ay corps de contrôle ñu génn ay rapport rapport yaa ngi nii tege justice mooy dox liggéeyam kuñ ci woo nga dem mu yóbbu parce que c'est une exigence citoyenne parce que en matière de bonne gouvernance de transparence dafa am loo xamante ni yenn wul maanaam Pa Ousmane man du ma baal yi li xew ci Covid mënu ma ko baal que on nous a dit restez chez vous am naa sama benn yaay buy jaay cere bu 18 jotee mu lem cereem te cereem rek la yor pour dundal njabootam. sénégalais yi ñuy feebar am problème oxygène ñu koy jaay sept cent mille fii hôpital Dalal Jàmm ñi ko amul faatu ci moment boobu on di dit restez vous mais on vous vole on se retrouve un ministre qui envoie son chauffeur retirer cent millions par jour pendant vingt quatre pendant vingt quatre heures donc nag loolu jot nañu rendre compte donc pour man c'est nécessité et que tey ak le pôle financier dañu modifier li nga xam ni mooy code de procédure pénale bi modifier règles yi pour que au moins ñu bañ a violer li nga xamante ni mooy euh, droit wu nit ki parce que CREI yi amul woon amoo sañ-sañ ñu def appel. bokkoon na ci yenn greffe yi soulever woon euh, CREI yi renversement de la preuve lay def parce que dañ naan la preuve incombe au demandeur maintenant. pôle financier comme rectifier na li nga xam ne moom moo nekkoon ci ci ci CREI et c'est un boo xamante ni dina mën a def saytu dina mën a àtte te dina respecter ak ak yéen donc pour man euh, le fait que ñu mettre ko en place. jël dossier yi transmettre ko justice ça veut dire que la machine est elle est en branle. Hmm. d' accord le timing waxu ci. Euh, moment bi nga xam ni moom la Amadou Ba defee sorteem. waay ka moomee laaj. nam moomee laaj wala man maa lay laaj yow kay jëlal laaj rek. ñu def une reddition des comptes. ñu ñu annoncé ko commencé yenn dossiers yi commencé génn. ma euh, mami léegi wax na ko euh, Amadou Ba est comptable du bilan de Macky Sall. absolument 2013 ba 2019 ministre de l' économie et des finances. Oui. Euh, pourquoi mu choisir moment boo xamante ne ci lay defee sorteem. Mhm. Euh, moment wu ñu ngi waxtaanee reddition des comptes. te moom ci taxawal bi ndaje beeg yépp taxawagul partie goo xamante ne mën na jëm vers des échéances. oui mais c'est dem ci échéance moom. Euh, mën nga am mouvement sax dem ci échéance parce que mën nga wut allié mën nga am benn allié boo xam ne am na lijaase pour duggal la d'autant plus comme ni nga ko waxee élection bi amul parrainage. Mhm. maintenant euh, est-ce mais que mais daf ko annoncé dafa annoncé taxawal parti. waaw mais loolu moo xam parti la def wala mouvement wala daayira loolu moom la. Mhm. mais il a son su amul ambition du ñëw naan day postuler wala muy teg dara. Mhm. et puis même analyse le fait que mu ne. du maa ko sàqu yéen ko sàqu c'est-à-dire dans la communication mu ngi bëgg a wane ni c'est pas à lui tout seul mais c'est une organisation avec ñeneen ñoo xam ni teg nañ seen seen seen seen seen seen projet politique. maintenant tu as parfaitement raison mënul nekk ministre des finances pendant neuf ans te amul responsabilité maintenant est-ce que am nañ ay structures yoo xam ne ñooy def l'enquête. Ah. am nañ structure yoo xam ni ñoom ñooy àtte. am na structure yoo xamante ne ñoom ñoo war a leeral Sénégalais si Amadou Ba sa responsabilité engagé bu ñu ko woo dina dem wuyu ci lépp parce que bu leen fàtte ni PSE bi. même bu fi élection jaaree. même non pour man affaire justice ak affaire élection c' est différent. Mmh. c' différent. pour man y' a un agenda boo xam ni wàllu justice ak reddition des comptes. ça n'a rien à voir les élections maintenant ku jàpp ni war nga teg sa kuréelu politique pour wut wallu pour wut couverture pour que ëllëg suñ la woowee nga am mbooloo buy taxaw di la kaasal yaa ngi nax sa bopp aussi. Hmm. donc il faut qu'on qu'on fasse d'abord la différence qu'on fasse la différence moi je vais pas dire. Euh, euh, diw diw wala diw nangam buñ ma woon léegi ne ma li nga wax ci diw ban preuve ngi koy war a lijjanti dañ leen jox ay moyens. Hmm. jox leen ay jumtukaay muy pôle financier bi ngay dégg am na ñoo xam ne ñu ngi wuyu am na sax ñuy delloo. xam nga ci dara. di xaw ma ci dara. <laughs> kenn du ma duggal. daal li ma la mën a xam. boo informé pour ñu xam exactement. Euh, Pape a dama ne man Cheikh Omar man maa jël option boobu. moi hmm. je vais pas prendre une personne di ko jeter à la vindicte populaire. il y a des autorités judiciaires. Hmm. qui ont en charge. et qui ont la responsabilité d'édifier les Sénégalais de mener des enquêtes minutieuses maintenant dans la démarche fexe ba. génnee si toute forme de connotation politique parce que suñ ko defee di nga gis ñuy victimiser wu sur le plan politique. Hmm. comprendre nga li ma la wax. mais am na yoo xam ni yëfu dëmm la. na nga baal ma si kàddu yi après di ma yedd parce que yenn yi c' est du démisme financier c' est des crimes économiques jàmbaar ay milliards ay nit organisé wu na ko dañeex hmm. comprenez ay milliards ay nit di ci dund te sénégalais yi ñu bëri am problème pour faju ñu bëri am problème nga dem ci yenn maternité yi ndaw si su accouché ba pare amuñu fuñ ko lal buñ ko tëral pour mise en observation dans not Sénégal ngay toog yow am ñu lay woone ne la suñ dëkk ñun mosuñu gis ambulance. au même moment on assiste à un carnage financier c'est un système mis en place de détournement de deniers publics c'est des crimes économiques et toutes les personnes yi nga xamante am nañ ci responsabilité lu mu tuuti tuuti ils devront assumer leurs responsabilités. opération gox lu ci waay wan noonu. à la riba googu na ko delloo donc pour man loolu ça n'a rien à ak ay affaire élection législative ou Sambata Ndiaye suba nag ku ñu woo nga naan waaw pour des raisons politiques la wala sangam bu ñu fontoo maintenant ñi nga xam ne ñoom ñoo yor loolu en charge moo tax c'est hyper important dans la communication déjà ñu def le distinguo entre la chose politique et la chose juridique. donc pour man ñoom ñoo ci am tout intérêt parce que Macky Sall dans sa démarche au début dañuy ñëw demande sociale demande sociale mais gis nañ fu mu mujjee. Hmm. et je ne crois pas que ñiy def erreur boobu parce que j'ai entendu Sonko dire avant muy tànn Diomaye laaj na ko ne ko ñun bu ñu ñëwee il faut yat bi dal mu ne ko déet bu ñu def erreur bi ñu la defoon. donc c'est hmm. hyper important de fair la part des choses. Hmm. et ñun sénégalais suñu xoolante suñu biir xam nañ ndax sàcc gi am na fi wala amu fi. d'accord sàcc gi am na fi. léegi nag nañ jàpp sàcc opération rëbb dëmm opération jàpp sàcc. Mhm. addu kalpe nu la neex nañ ko tuddee mais képp ku jëloon alalu askan bi na ko delloo. ci nii mbaa ci ne la et puis yat bi mu dal. d'accord euh, ci fàttali léegi nii rek bi muy wax daf ma am.